ngëneelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci yàlla waxul nit waru ko wax ba yàlla wax ko ba noppi dëgg la yonent bi nee na arab moo gën ci biir arab Quraysh moo gën ci biir Quraysh maa gën waaw wante waxul lu tax mu gën li mu nekk arab taxul li mu juddoo Quraysh taxul waaye suus bi ci wetam rekk moo tax lu ko mooy dafay sàcc niru épuration ethnique moo tax da ngay wax ni fal urubu xayru unaasin summa xayruhum quraychuhum wa huwa fihim xayru xayrihimi ñu ni arab xayru unaasin ñoo gën a source bi tax nit gën morom waaw waaw waaw lu ko moy nga tuumal jambour سيدي الحاج مالك رضي الله تعالى عنه فدان وخني مع الشيخ نبوك أتلي أي بدر دسل دوري ما أم جلاي روي مدل وخني يوننتي جوبر يالا لنجنين خمجة خمجة delloo bàttu ci ndaa wàññiwul dara